wàllum ngóora lu tuuti la sama liggéey non non mais du lu tuuti nga wàllum ngóora nag marabu boo déggee man la li tuuti la sama liggéey du lu ndaw ba may bàyyi ma développé foofu tuuti sëy yu bëree ngi tas ndax loolu sëy yu bëri ñu ngi tas ndax wàllum ngóora xale yu góor yi léegi ñi ci bëri balaa ñu am cinquante ans pare quarante ans sax balaa ñu ko am pare parce que foowee nañu seen ndaw lu yàgg wala rab yi nga wax nii dugg la yàqal la wala ndoxum siti dugg la yàqal la góor ñu bëri léegi da ngay dañu takk jabar sëy bu def weer ndaw si day tas da lay suturaal rek waaye lam fa fekk du du loolu donc bu fekkee ne am nga ci xam-xam bu sell bu leer waxtaana la ñun ñi gaa yi ñëw ñu faj leen ñu faj leen parce que wéruñu ngóor a da koy faj zo xam nga ne fi nga toog nii hmm. am na ñoo xam mboolem fi tegoon luñ ma war a laaj duñ ko xam Hmm. et ñuy wax ak man man may tiit ñoom ñooy tiit. Hmm. kon li ngay def nii ci exemple mën na lu tuut lu tuuti la sa liggéey. loolu dëgg la. wàllum ngóora boo gisee li ma la wax feebar la boo xam ne feebar bu metti la te dafa bëri ñoo xam ne daf lay daf koy dal nit ñi ba xam nga ne maanaam mën nga am soxna. Hmm. yow sa ngóora dara du ci dal da ngay yeewu nii gis lépp macha allah. waaw ngay lépp macha nga tiim ko sa ngóora du du taxaw. dox la. loolu mën na bañ nekk. ci ku góor ki nekk rab bi nga xam moom moo nekk ci jigéen ki parce que rab day fiir yow ni ngay fiiree ni noonu la rab di fiiree dafa am rab dafa am jigéen ñoo xam ne dafa am rab yuy nekk ak ñoom rab yi nag sonal nag dafa am maanaam jigéen ñoo xam dafa am rab yu nekk ak ñoom waaw di sëy ak ñoom sëy boobu noonu noom ñoom dañ koy gént te fekk rab bi mi ngi seen kaw di sëy ak ñoom moo nekk seen jëkkër dégg seen borom kër day fiir ak keneen bu la rayul moo tax nga des fois ngis nit ku takk nit ñu teg jaay fa yu néew mu faatu bu la deful loolu tamit maanaam heure boo ko tiimee yow moom maanaam sa ngóor dootul taxawati. loolu moo tax balaa nga takk soxna tamit def xool ko tamit baax na. des fois yow ku góor ki nga am gelu rab rab bi di la fiire heure boo tëddeeg sa sa sa sa soxna mu téye sa ngóora. rab mën sama ngóora man. waaw léegi nag kooku bu ko nee ko kon kon kooku yow boo koy faj nekkul ngóora nga koy faj rab nga koy faj. rab bi dem ngóoram dox. dafa am ñoo xam nag seen ngóora dafa yàqu. siti siti ndoxum siti da koy def. ndoxum siti da koy def émirate am na métti bu muy métti parce que sëy moom xel moo koy def. Mm-hmm. am na métti bu muy métti da lay ba maanaam yow loolu du nekk sa xel sax. Mm-hmm. moo tax seet am solo ñun mën nga ñëw ne ñoom dañoo ngóor wala leneen leneen. dañuy seet xam lan la mooy consultation bi rek. yow li ngay indi ñun nekkul ci loolu la ñuy dépendre li ñu seet gi di ci loolu la ñuy dépendre ndax mën nga ñëw ne man kat dama ngóor sama sama sama dama tële. nit kat dem jox la ay sunguf ne la lii boo ko naanee sa ngóora dana dana dana dañ mhm. fekk sunguf soos noonu wàllum ngóora la mais yow ngóora jàpp la raba la jàpp dëgg la rabba ngay lijjanti rabba ngay lijjanti ba pare mun a cooc waaw boo tax ngóora moom lu tuut la suñu liggéey li tax ma ne lu tuuti la suñu liggéey dañ ko xam xam fu nekk ak fa ñuy jaar pour yàlla bu suñu borom mën la cee may ndam marabu ñi tax ma créé émission bi wax naa ko sama introduction ba may nuyoo muy bitim réew yi gis nga bitim réew maanaam bu la fa kenn na képp ku fa nekk te amoo këyit amoo xaalis te boo fa nekkee te amoo xaalis da ngay sonn da gis yenn saa yi ku naan la booy boo ñëwee France maa lay héberger maa lay nangam sangam boo ñëwee France dañ ko woo un mois deux mois du jël téléphone am parce que bu muy néeg bu mu dëkk douze personnes lañ fa amagul këyit liggéey bi suuf ngay liggéey booy liggéey liggéey suuf duñ la déclarer fenn. te dépensé danoo bëri café Touba bii di jar fii fukki dërëm di jar fii cent franc boo demee France café Touba kaas bu ndaw bi un euro lay jar six cent cinquante cinq CFA la la vie est chère là-bas en Europe ñaanal leen leen ñu am kayit parce que alal ba da ci bitim réew alal ba tubaab yi yor ñun ñoo ko moom suñu ay maam ñoo ko moom tubaab yi fii lañ ko jëlee dem defar seen dëkk ndax loolu yow mën nga ko ñu nekk Europe ñu bëree bëree bëree bëree bëri dañuy dem ba man sax duñ ma woo dañuy woo samay parents di di leen kalaame ak man sëñ Ndiéli dafa naqaree jot dafa naqaree jot. waaw man naqaree maa jot. loolu nag moom. xam nga lan ba ba bi ñu wax ci loolu. xam nga lan moo du ma la andi ba fii ngay jot. xam nga la xam nga lan moo am non non waaw xam nga lan moo am. Hmm. ku ma yàlla booleel. mais xam nga. waa nga ne wàllum këyit dafa am hmm. secret. yooyu noonu ci la ñuy jaar pour yàlla mën ñoo may ndam. luy bi. secret bi mën naa la cee jox benn boo xam ne même boo ñëwul ci sa njëli boo ko defee da ngay am mhm. ma ne la zoo da nga bëgg ay kayit demal nga wut sump sump waaw déggu sump nga wut ci juróom benn xeeru carrière yi nga xam ne dañ koy defaree tali nga wut ci juróom benn mhm. wut juróom benn xub nga xooj ko ci ndox mhm. nga sangoo ko ñetti ajuma benn ajjuma nga koy sangoo ñaari ajjuma ñetti ajjuma ba xam nga ne kayit goo mënti déposé wax mala la ay passeport visa carte d'identité na nekk kayit daanaka suñu borom daf la koy may te loolu ña def ñëpp ñëpp yàlla may la leen ci ndam waxuma la ak man mi nga xam ne dama koy joxe moom tey sama kurus war laa ñaanal nag zoo boole ko ci ah loolu yàlla da jox ndam ibbi la mooy plus bi voilà man dama lay jox secret wàllum kayit nga dem def ko yàlla may la ci ndam waxuma la ak maanaam yow nga ñëw fay ma sa xaalis ma war a tëju liggéeyal leneen la wàllum kayit képp ku ma ci liggéeyal sottiwul boo ñëwee ma delloo sa xaalis Hmm? te ma ci dalee liggéey ak léegi amul kenn ku ma si mës a laajaat fii ki dërëm parce que xam naa yoon bi te chaque jour maa ngi fay jaar yàlla mi ngi ma ciy may ndam moo tax man ay liggéey yoo xam da ngay dem ba yaakaar yow yaa ko hmm. ndax yomb gi muy yomb ci yow nga koy def yàlla di la ci dimbali mu nekk loo xam day mel ni genre kele danga ngay jël caabi dem ubbi d'accord naa